ndeysaan ndeysaan ndeysaan wallaay mbaay ndeysaan mbaay yow dangaa baax mbaay dangaa baax mbaay ndeysaan wallaay wallaay waaw te sax nag gis nga biram senegaal lu baax lu nekk ngi fi neex naa dund neex a dee waaw dëgg la mbaay te sax mbaay ñun tamit dootuñu ay xale te immigration dafa metti ñibbisil mbaay wallaay sa décision bi nga jël rafet na boo demee ba am yenn âge yi il faut savoir retourner au pays toog ci wetu njaboot gi Badara Soumaré maa la bëgg borom jëppal Miss Sénégal bàjjen boucher am moom may jaay sandwich sauce méritant sauce méritant mais boobu ba yow xalaat nga ne nekkoon ah, depuis démb ma ma lay war a jotuma la ah boy depuis démb ma ngi lay woo woo jotu ma ah, mais nga xamante ni dama am problème pour xamul deux jours a ngi nii woote ma wuyu ma et alors. waaw hmm. mais alors nag. bu booy bi lu lu mu wax. ban booy. booy boobu baal mu sedd quoi. ah booy bi sonde naa maay na mais esprit ngaa ko blende la te yéen ñaar bu ngeen dem bàyyi ko après mu wutal la keneen xam nga ma ci c'est avec moi xam nga mu baax. ba yow nga. booy bi dina ma ñàkkloo ne ne nelaw may bàyyi ne mu sedd. leen laa lay xamal booy bi nga dem fa taxaw di wax ak moom dina am fum la teg te fam lay teg mooy ñun ñaar suñu diggante ñun ñaar mooy loolu. mais am na ñeneen ñu ko fi gën maa ngi ñoom am bagaay baal ma tuuf la ci ñooñu lan la. man sentir ma ñu ñooñu. ah waaw. ma de. xam naa ni bis bu la ñu ñu jàkkaarloo yàlla na ci yàlla def jàmm dina ëpp torop ndeysaan ah xam nga ko loolu du tax. bu ma yàlla mayee wér rekk boo nee cëpp ci avion bi man ngay jàkkaar lool ñu def sunuy façon incha allah na la yàlla teg ci yoonu jàmm jërëjëf mbaay jóg nga. loo fanaane. xam hmm. nga rek comme d'habitude. lan la lu xew. jamono yee ñu génn yépp da doon waxtaan ak man di wax dafa bëgg ñibbisi maintenant jël na décision bi il veut rentrer définitivement d'ailleurs bagaasam yépp dugal na leen ci kontaneer bi ñu jiitu ko bañ ci toll yëfi choix la woon il avait décidé de partir man j'avais décidé de rester au pays ndax ñi ñaa fiy toog di am lu ne bu nee day ñibbisi tey nawle moom ak ña demoon bu ñu ñibbisee ku ñu fekk fii rekk waruñu laa yërëm war naa ñëw fekk xam ni buur mi yaafusul te tëddul woon di nelaw ba tax na bu ma nee jàkk ni leen jàkk xool sama environnement wax ci dellu ca la mag ña daan wax te muy dëgg daraa ngay àdduna bët la waaw c'est important pour moi loolu rek la waaw yàlla yàlla bay sa tool yàlla buggul yaafus yàlla buggul kuy nelaw man je suis un noble sa jëkkër du yàmbar waaw daf ma war ñëw fekk ma ci état pur avec tout ce que comporte te noonu lay demee sax waaw waaw du dara waaye yëfi tactique la hmm. xam naa kan mooy biram te biir bi umpulewul buur du defante sax waaye c'est moment crucial pour moi il faut ma téye drapeau bi waaw drapeau bi maa ko moom ah, bàyyil ma dem j'ai beaucoup de choses à régler ah, da ngay dem marché. waaw damay marché. acca ngoon yëpp. mais mais mais mais moom ay yenn heure lay lay waaj sax. mooy je je je je sais pas man daal depuis su su sooba ma maa ngi toog fii di di ko xam. yow da nga ma yeb mu bëgg a tuutal ci koñ bi quoi non du mën a ne ah baal booy bi man li ma la jox keneen voilà silence ba bay ba ngi ne di ñëw. waxoo booy non non non non booy. waxoo falaa yem booy yàqal ba ba ba ba. maa ngi daal mademoiselle. ça va. bon man la saf na neex bon c'était juste que man saa bu ma la séenee nga fiy romb rek damay dégusté wu quoi. ah bon. je t'estime bien te dama neex ko te bon je je veux qu'on crée une relation. fidèle mhm. mhm. et sincère quoi. bi dafa mignon sax. sa bi dafa mignon. merci. mais ki sa copain. ah j'arrive na la de nu ma de ba ba jàmm. dama sa portable ma jëloon sama numéro après ma tegal. Hmm. ma dégg après naa la tegal au revoir. Si sempre sinito, pocho ni kandas brino. tey suñu démb yaa si sa góor moo ca balakoos. tey na nga def. xanaa liggéeyoo ko bu baax nag de. waaw jàng boo gis am na àllarba. dëgg la dëgg la ça va. yow nag xam nga ñu bàyyi. waay waay kii namm naa la. yaa mel nii gis nga ne maa ngi nii. Mm. ana bu. buur euh, ba ma yeewoo gis ma ko gis. génn ah, génn ana kumba. kumba tamit gisuma ko est-ce que demul marché. Ah, nga mm. <laughs> ndékki. yoo rek laay ndékki pare naa ci. noo ndékki. sama yoon nekku ci. <laughs> maa ngi ñëw. ah ma waaw. génnewul xeet ah nga xam ne soo bàyyi sa askan askan boo dem fekk fa borom toog yow nga xam ne léegi bu soo moom su ma ñëwee danga may teeru teral ma teg ma sama place ah te xam nga xeet dafa neex te yaay sama xeet sama deret <laughs> jërëjëf ñàkk moom xaar ma ñëw doom su baaxee ki yëpp gis nga lii lii xool mukaay la loolu ko suufu lalam boppam fi muy féete di fanaan fa nga yëkkati lal ba na nga mën dégg nga ma. lalu kan kumba. waaw tey tey danga nekk doom ju baax moo tax ma ñëw di jàppale waaw yaay sama deret yaay sama lépp dugalal gàncax gàncax yaay sama xel ngay jàppale da baax si man. ma la buur dee tumba moo jógee marché ah dama ne lim la danga ko def dinga gis salaam ku ma nanga de na mu naa la maa waaw foo demoon ni maa demoon marché ah nii rek lii de ko bëggee léegi day dafa romb ax naka marché ba. marché ba ay romb waaw kay tubarkalla. yaa ngi ci jàmm. maa ngi bu baax. di si yonent bi salaahu salaam. nga def ak maa ngi gërëm yàlla. maa ngi yegg ci wàññi. maa ngi yegg ci wàññi. waaw kay lii laa ko bëgg de dama bëgg kuy defar ba mu baax. lii la yëg day defar. dama ne ba ma doo ba ma nekkee sama doole nekk jéeg fa ma waroon toog toog fa sama benn moromu jéeg saa yu duggee dina de botte ma fa ma ne fa dégg yàlla na fi yàlla may njaboot yu barke dégg li ma wax mm-hmm. maa ngay dem loo xaar buur xaar ma kenn damay naaj pourtant mën naa léegi ñëw yow bàyyi ma ma waaw man damaa soxla woon téléphone. téléphone. ak iPad. ak iPad. waaw. Euh, téléphone la. Euh, iPhone. nan ne téléphone bu mucc ayib. dernier modèle. boo xam ni ñi nga xam ni dañuy jóge France maanaam bitim réew. ca ya mujj ayib foofa. ca ya mujj génn la ñuy yor bu ñuy ñëw fii genre. ça va. loolu sa biir man sa biir néeg yow yow gis naa ne da nga sa biir néeg looy wut sa biir néeg ak def. xoolal sa ma ne loolu doon sa biir néeg. looy wut sa sa loxo bu ma laal ak doon def dugg sa biir néeg. bañ maa moytu rek.